Yeah. interne euh, ci législative 2024 euh, charme et vices d'une euh, compétition électorale noonu nga ko tuddee. waaw xam nga législative yi 2024. Mhm. dafa doon législative yoo xam ne dafa wuute nag ñu fi daan am. Mhm. lu waral loolu mooy. Mhm. enjeu bi dafa énorme ndax ñaari camp la. maanaam ñu yor pouvoir bi bu ñu sañoon. am majorité waxuma majorité rek waaye majorité qualifiée. parce que réforme yi ñuy envisager buñ dañoo bëgg ne am majorité maanaam am trois cinquième de députés de l' assemblée nationale. Mm-hmm. muy quatre vingt dix neuf députés sur le cent soixante cinq pour li nga bëgg a jàllale nga jàll ko. Mm-hmm. beneen ñun aussi mooy ñi jàkkaarloo. Mm-hmm. dañ leen di wooye opposition. ñoom tamit dañoo am yéene fexe ba gàllankoor Ousmane Sonko ak i ñoñam. ba nga xam ne li ñu bëgg seen yéene duñ ko duñ ko mën a mottali. Mhm. ba buñ demee assemblée daal yu bari luñ leen bëgg a teg. Mhm. duñ ko dinañ fexe ba génn ci ensuite dina leen permettre aussi ku dugaloon ay immunité. Mhm. pour yenn député yi ñoom dina mën taxaw bañ loolu fexe ba loolu du am. donc ça veut dire que. enjeu de survie la. c'est ce que j'appelle la guerre de survie. survie politique. pour tout le monde, que ça soit pour Ousmane Sonko. Mhm. parce que s'il rate ces élections ça sera fatal pour lui. Mhm. opposition bi aussi s'il rate ces élections ça sera fatal pour pour mhm. léegi nag. dafa am yu bari liñ ci seetlu mooy. ci wàllu côté charme. gis nañ ne amul parrainage. élection yi. parce que parenage bi. daan tax ñaar campagne double campagne la am. en réalité parrainage campagne électorale. ça permettait aux gens de faire le non de dinañ def loolu dina leen jëlal temps jëlal leen énergie ensuite c'est c'est ça a été coûteux beneen avantage bi mooy mhm. ça permet à tout le monde de participer mhm. léegi nag ku am les conditions nécessaire ak mhm. suffisantes pour dem élection yi da ngay ñëw bokk léegi seetlu nañ ne daal il y a quarante et un listes léegi nag beneen particularité bi mooy ñan ñoo ko jiite liste yi mm-hmm. dafa am liste bu ñuy wax liste Pastef mm-hmm. ki ko jiite mooy premier ministre jamono ji bu Sénégal ñu ngi wax Ousmane Sonko mm-hmm. nga dem beneen list bu ñuy wax takku wallu Sénégal ki ko jiite nekkoon na président de la République yàggul mu ngi ñëwaat ci langue loolu nag bariwul luñ koy gis ci sunum réew toog sept mois après nga ñëwaat nekk président di de liste yi donc lu bari am na lu muy wund beneen list bi ku ko jiite mooy jàmm ak njariñ ki ko jiite mi ngi tudd Amadou Ba Amadou Ba moom pour nekk na fi ñaari yoon premier ministre donc moo ko jiite beneen list bi ki ko jiite mi ngi tudd Barthélemy Diaz maanaam sàmm sa kàddu léegi nag kooku tamit maire de Dakar la donc boo xoolee ay personnalité yu mag ñoo ñoo jiite liste principal yi quoi hmm. ñu yaakaar ne daal fa la combat bi nekk hmm. maanaam xam nga àdduna aussi il faut ñu nangu leen ku nekk dafa am looy peese hmm. dafa am mbër yu mag yi moom dafa mel ni Barça rek ñi xam football ay Pierre yi man bariwuma ci xam-xam mais Pierre moom yàlla dogal na borom xam-xam la ci wàllu football. bon donc ay Barça yooyu. moom bu am ay joueurs ay joueurs yu mag donc compétition électorale bi aussi dafa am ay joueurs yu mag yoo xam ne ñoo fi nekk. léegi nag bu loolu weesoo aussi ñu gis loolu yëpp am na. Mhm. gis nañu aussi ay directeurs généraux ainsi de nag léegi nag. Mhm. cinq lañ ci soxla rek. pour 18 millions d' habitants. donc il y aura beaucoup d'appelés mais léegi nag loolu yëpp commencé nañ depuis démb ci dimanche gis nañ discours yi ku nekk ngi wone ne buñ la joxee majorité di nga doxal réew mi am na aussi leneen lu ñu seetlu waaw mooy mhm. ñu baree ngi jóge langue ga ñu nekkoon di dem feneen mhm. ci sunu langage ñu dañuy wax transhumance parce que transhumance mooy màngaan maanaam séeréer xam nañ ko nga xam ne dangay ngay nekk fii yor sa jur. pël yaa koy gën a. <laughs> ñoo yore seen troupeau di màngaan. léegi <laughs> yéen ñu mën wax dëgg yàlla <laughs> ñoo ñu dàq sàmm léegi léegi da ngay nekk fii. ñax mi wow nga dem wuti fu ñax mu tooy. lu ne nag transhumance bi li ko gën a symboliser mooy dañuy daw weer passif. Mm-hmm. parce que ku ko jiite mooy Ousmane Sonko. boo fàttalikoo avant élection waxoon na ne ku nekk na nga toog fa nga ne. ñu ñëwaat mu ne moom kenn turu Pastef lay demee. mais terewul gis nañ fan yi daal transhumance bi takkarnaase na lool. te li ci gën a yéeme moom moom ci boppam sax moo leen di recevoir. parce que gis nañ les maires de ñoom ñëpp en grande majorité ils ont été reçus vendredi. Il y aussi le maire de Ngexo, Pape Songrin Diouf. Il aussi le maire de Ross Béthio, Fa Fally Seck. Fally sans compte aussi département Nioro maire yëpp màbb nañu. Mm-hmm. demuñu ci Doura Balde ah. donc il y a aussi hier Doura Balde moom dafa mel nag dafa dellu këram. Mm-hmm. parce que moom il fut le trésorier adjoint du Pastef. Mm-hmm. ensuite membre fondateur ñu créé Pastef la ah, ba muy metti daa daw waaw ba muy me loolu ci doy waat nag ba muy metti nga bàyyi leen fi dem donc ça veut dire que transhumance boobu daal dafa doon loo xam ne sunum réew dafa gën a takkarnaase fi mu toll nii te wax dëgg yàlla du loo xam ne mooy gënal nit ñi mm-hmm. te boo interroger histoire transhumance yu bari da ngay jàpp ne dañ lay indil leen mais le cas de Idi dina yàqal rek. Idi bi mu transhumé la gën a yàqal boppam parti am ensuite ñi mu fekki woon. parce que Macky Sall bi mu bi mu koy recevoir dafa ne manger ñaata la amoon cinquante huit pour cent Idi à vingt pour cent boo ko boolee ça fait soixante dix huit pour cent donc on peut être à l'aise mm. mais le grand paradoxe mooy Thiès cees sax mënatu koo gagné. depuis des parce que population aussi du ñu ay mouton de Panurge. Mm-hmm. yoo xam ne foo leen bëgg yóbbu ñu yóbbu leen on se rappelle aussi yàlla na ko yàlla yërëm le cas de Djibo Leyti Ka en 2000 mm-hmm. mu ne je demandais à Abdou Diouf de quitter le pouvoir mm-hmm. gars yi ne eh, mu ngi nii ànd ak ñoom Ablaye ba mu deux jours mu jékki-jékki demandé à ses militants de voter pour Diouf mm-hmm. gars yi na ko kii te seetlu nañ aussi li ci gën a doy waar mooy damay nekk ci ab liste le cas de Déthié Fall la waaw ba mu noox la nga ne man bàyyi naa sàmm sama kàddu maanaam la coalition et puis c'est significatif quoi bàyyi naa génn naa sàmm sama kàddu mm-hmm. te yaa signé woon yaa def lépp nga xool le cas de Abdoulaye Dieye mm-hmm. dem ci nga gis aussi il un maire de Mbacké sàmm jàmm ak njëriñ la bokk il est sur la liste départementale titulaire dem na wuy ji Ousmane Sonko keroog mu ngi lay di wax ne xawma lan il va consulter la base te gars yi dañoo xarañ quoi. Mm-hmm. chaque fois il faut ñu dire le mm-hmm. ay base bi ay pour la patrie. ak pour le Sénégal quand on wala ñu ñëw indi la un de la nation wala ñu ñëw nag ci gën a aay il t'amène un décret maraboutique <laughs> sëñ bi ne man daal sëñ bi mënu comme que sëñ bi woo na ma jox na ma digal ainsi mais c'est des voies yoo xam ne yi wax dëgg yàlla sëñ bi du ñëw wedd du sëñ bi sëñ bi du wedd amul jël sax moo lay wan ne ce pays là lu ñu war a gën a defar ci côté boobu quoi parce que Ablaye Wade jaar na fi transhumance yu bari kii Macky Sall, on se rappelle ça d'un ancien ministre qui nous disait que, premier ministre, qui nous disait que les, les transhumants doivent être figés. mais malheureusement deux ans après moom. moom mu dem beneen de côté donc. ça veut li mu la moo ëpp foofu lu mu la a. donc en problème mooy. Mm. Pastef mm. parce que il nous avait promis la rupture. Mm-hmm. que lii du am ci ñoom. ils ferment la porte mais en tout cas ils sont en train d'ouvrir les vannes léegi vannes yooyu nan la leen après les législatives aussi nan la ñuy def ñi mhm. parce que gars yi ils ne viennent pas pour repartir ils mhm. viennent pour rester mhm. te c'est donc ce sont des gens qui vont s'investir dans les législatives qui vont amener leur expertise qui vont amener leur énergie qui vont amener aussi leurs sous. D'autres moyens, oui. Voilà. Et puis c'est des gens qui ont des moyens mairie ils ont des moyens ak anciens ministres ak yooyu donc c'est un problème nañ xool bon li ci kanam rawulu bit peut-être ils vont trouver une solution par rapport à sa beneen bi affaire bi aussi gis naa ne am na benn innovation. Hmm. mais waxtaan hmm. innovation yi nga baal ma tuuti. Hmm. c'est-à-dire que ma wax par rapport ak transhumance yooyu la man ah. li ma mënta comprendre mooy le communiqué de Ousmane Sonko le cas parce que Samba Ndiaye président Bassirou Diomaye Faye nee nañu moo ko bon moom moo signé fal ko ñu nekk PCA bu Sénégal SNHLM. coow am nga gis ay cadre du Pastef jóg nañ di fustiger ñu jékki-jékki dégg Ousmane Sonko wax ne peut-être njuumte gu bàyyeekoo ci Diomaye peut-être après suuf daañu ko daan daañu ko corriger te Samba ko quoi qu'on dise tamit moom mu ngi woon ci coalition Diomaye. waaw depuis euh, depuis lu ret ànd ak ñoom candidat recalé mu jël léegi en contrepartie ci même jour wala xaw ma deux jours après nga gis Ousmane Sonko di recevoir ay Ndoura Baldé. waaw mais ça me pose la question quoi c'est que dafa c'est tellement nuancé ci man quoi. waaw léegi. parce que foo mën foo mën a foo foo mën a xarabee Samba Ndiaye kay wax dëgg yàlla foo mën a recevoir <laughs> Ndoura Balde quand même. mais Ndoura Balde quand bu yàgg la waaw mm. mais de toute façon. mais de toute façon Doura Doura def na déclaration. déclaration moom nee moom moom ma ma ci biir quoi. c'est ça dajee fas yéene takk rip sax waaw takk rip mais gis nga Diomaye a problème. Mhm. il fait face à ce que j'appelle le radicalisme pastefien parce que lui c'est le chef de l'État mais ñu bari jàpp nañ ne ñoom ñoo ko moom parce que Diomaye c'est le chef de l'État bu nommé kenn il a il a ses prérogatives de nommer au poste civil militaire lépp moom lañ ko teg mais da gis ne day nommé ça commence à être récurrent parce que day nommé ay nit taxaw ne la on a vu avec Moustapha Guirassi il a pris un arrêté pour un intendant mm-hmm. de lycée gars yi yooxu mu dellu ginnaaw Il a le directeur du COUD, Ndene, mhm. qui a pris un arrêté pour nommer quelqu'un comme chef du protocole et de la sécurité. Mhm. gars yi indiwaat yi mu waxoon ci jamono yi bu yàgg. Mhm. après waaye ji il a présenté sa démission quoi xam naa sous pression finalement sans compter aussi il y a un autre directeur du nom de Alassane moom loolu moo ko dal. donc ça veut dire quoi. ça veut dire que ñoom am nañu doole ci état bi te ñi koy wax c'est des gens yoo xam ne ñu nekk réseaux sociaux lañu léegi bu ñëwee aussi ba seen kilifa yi parce que yow tu directeur général tu as bénéficié d'un décret Samba Ndiaye a bénéficié d'un décret yow nga taxaw ne Samba il faut ñu wàcce ko keneen taxaw day dem ba day fragiliser l'autorité de Diomaye c' est pas bon parce que kilifa surtout boo bokkee mbir le linge sale se lave en famille mënoon nañu ils ont des canaux le pré le premier ministre Ousmane Sonko si vous parlez à Diomaye il a un canal. décret yi moom ah, ah et puis moom c'est son adhésion. nga ñëwaat pour tempérer l'ardeur débordante de tes militants tu leur dis que oui nangam ak nangam mais Diomaye va corriger sous peu. mais kilifa kenn ku njiitu ci mbaram Diomaye c'est le chef de l'État il gère 18 millions de Sénégalais donc Diomaye a eu l'intelligence de montrer que il est droit dans ses bottes il a choisi Samba il n'est pas prêt à le lâcher te fi mu ko teg certainement c'est des critères bien bien bien lucides gis nga Abdoulaye Wade mës na def benn nomination temps yooyu gars yi ñu taxaw wër ko di wax ay kii waroo ko nommé affaire yi ngeen baal ma ci kàddu gi mu ne bu doon dëmm sax dama koy nommé donc ça veut dire que autorité dafa am léegi nag nañ ko bàyyi mu doxal léegi nag moom jomaay sax joxe na ay garde-fou nee na ku ku ñu épinglé wala kii moom du la protéger donc mm. mais bu xoolee ba xool ne Samba Ndiaye doit être là il le fait léegi nag nañ ko bàyyi mais bu ñu bëggee nag chaque fois quand Diomaye prend une décision de gens se lèvent pour di pour jëm ko force la main du du rafet sax pour l'image et pour pour l'avenir du Sénégal parce que ce pays là aussi nous appartient mm-hmm. te les cinquante quatre pour cent qui ont élu Diomaye ne mm-hmm. sont pas de mais dafa am particularité électorat bi daa am particularité par rapport à électorat yi doon am parce que ñii dañoo ñëw choisir mu mel ni référendum élection ce genre yi duñu benn je crois que ça c'est une mauvaise mm. raison mm. à une vraie question Okay. Quelle que soit la particularité de l'électorat de Pastef, nous, nous avons un État. Mmh. Et le parti ne doit pas primer sur l'État. Sur loolu mooy dëgg. Mm-hmm. gars yaa ngi wax nag di la wax ne ay parti ay particularité parti Pastef ak yooyu mais ceux qui sont capables d'admettre Lansana Gagny Sakho ceux qui sont capables d'admettre Mimi Touré que n'a-t-elle pas dit sur Ousmane Sonko Lansana Gagny Sakho que n'a-t-il pas dit sur Ousmane Sonko mm-hmm. on les admet on les tolère mm-hmm. pourquoi on ne peut pas tolérer Samba Ndiaye mm-hmm. je ne suis pas là pour le défendre. Ouais. mais damay analyser. il peut le plus peut le moins. waaw ah mais je ne suis pas là pour défendre sa Ndiaye c'est pas mon problème. que Samba Ndiaye soit excellent mais. question de cohérence il y a une cohérence une logique une mm-hmm. mais bu ñu bëggee chaque fois Diomaye aussi kilifa la mm-hmm. et puis il sert un état. Mm-hmm. Diomaye a dans sa tête dix-huit millions de problèmes. bu ñu ko ci yokkal yeneen waay. Mm. <laughs> non c'est vrai hein. non euh, la c'est la triste réalité. Mhm. <laughs> c'est am na aussi a. tu sens que ni à Pastef affaire bi ah. voilà et loolu mooy dafay. déteindre au sommet de l'État xam nga problème mu parti yi. dem ba déteindre ci. Mhm. gestion de l'État. c'est ça. te ñu on a tellement d'urgence yoo xam ne yéen war a gérer. Mhm. un homme d'État ne gère pas des détails. détails ça c'est détail. le diable est dans le détail. boo gisee problème yu bari di am rek loolu mooy tax ay détails yu sew yi nañ ko bàyyi mu doxal. moom la jël et puis et puis oui. la pression sur le président. Ah, peuple là. délégué son pouvoir à Diomaye. Mhm. na ko doxalal. dans cinq ans bu doxul on va le sanctionner on va reprendre le pouvoir on va donner ça à, quelqu'un d'autre mm-hmm. mais bu ñu bëggee nag sous le prétexte que il y a c'est un les gens cotisent wala yooyu mais boo délégué sa pouvoir délégué nga ko. mais du ay militants waa autorisé ci biir Pastef. loolu moo graaw nag. waaw loolu laa wax léegi. ñooñu waruñu wax directeur de wax président moo leen nommé. mettre la pression sur le président. et puis da nga publiquement. loolu loolu moo warul. am nañu lu ñu war a def. wala Ousmane ah. c'est pas normal. en mais mais xam ci la ñuy day ci la ñuy jeexalee que. mais léegi dama doon wax benn innovation bi c'est ça. mooy xam nga nous avons une démocratie électoraliste. Mm-hmm. démocratie bi dina def processus électoral inscription def ki affaire mais malheureusement. nous avons une démocratie sans débat. Mm-hmm. initiative boo Ousmane Sonko boobu dama koy saluer parce que aussi démocratie dafa laaj un débat d'idées c'est que nag aussi il faut ñu corriger benn affaire dans notre constitution qu'on fasse qu'en sorte que le débat d'idées soit institutionnalisé te bu ñu def élection ñu boole ko ci charte yi nga xam ne candidats yi wala principaux candidats yi dañuy def débat parce que yaa ngi fàttaliku le fameux débat entre Laurent Gbagbo ak Ouattara au Bénin il le débat avec Patrice Laffont ak keneen mais yow pays ñun ñoo di leen jiitu woon ci démocratie mais gars yi ñun ñuy mais une démocratie on ne débat pas une démocratie où il pas de primaire c'est quelle une démocratie d'accord électoraliste mais la démocratie ce n'est pas seulement des élections le Sénégal aussi il tire notre démocratie par le bas parce que bu amee idée yooyu gars bëgg débat muy def communiqué ne waruñu débat mais dans tous les grandes démocraties les principaux candidats day mënuñu am 40 candidats ñu def 40 débats les principaux organiser leen ay débats forcément xam nga gis nga mm-hmm. Seydina ñun dañuy dañu dañu yem dañu bëgg di targewu ci ay France ay dëw mais yi ci baax yu ci bari dañu koy bàyyi comme débat ñun dans notre pays depuis combien d'années laa Wade yàgg na ko réclamer Diouf amul on rek Macky réclamer nañ ko amul ainsi de suite mais wax dëgg yàlla bu ñu ko mënoon def daal dans la constitution ci réforme yi di ñëw le les prochaines réformes bu ñu ko mënoon dugal du wàññi dara quoi Ah, parce que ça permet parce que déjà Ousmane Sonko ak kii c'est le choc de deux styles. Mm-hmm. donc ça sera un débat vraiment intéressant mais mais CNRA moo moo yàq lépp de dafa war a réformer waat li nga xamante ne moom mooy. kii ko dépassé moo tax ñu war ko réformer war a xoolaat bu baax. seen en 2024 mu am les deux principaux leaders yu bëgg débat. waaw lu toll nii waaw ñoom ñu ne ñu non au de l'égalité entre les candidats mais non. empêcher les candidats sont d'égale dignité certes, certes mais quand même ils ne sont pas mm-hmm. d'égale politiquement et tout ça luñu lu ñuy mesurer bokkuñu mm-hmm. côté boobu war wax léegi pays yu mag yëpp ci monde bi. voilà ay débat bu amee dañuy jël les principaux candidats ñi nga xam ne peut-être sondage ñoom la ñu placé ci ci kaw ñoom la ñu organiser ay débat ñu ñu waxtaan. parce amul ñu tolloo. absolument mënuñu ah, tolloo. il y des gens qui comptent et des gens qui pèsent. qui pèsent absolument. Oui, eh, par contre bu fekkee ne débat di amul ay invectives lay jur c'est que c'est passé hier à Mermoz. war nañ ci jël war nañ war nañ ci bàyyi xel ah. parce que. yooyu rek la ñuy dox. <laughs> Eh, ay jàppante ay saagante wax ju ñaaw. ay le xeex bu demee ba am ci kii au lieu de débat di dee ay xeex di am doy na waar. c'est la confrontation de Moscou quoi. <laughs> c'est bon. En, tout cas euh, merci euh, doyen Mademba Ramata Dia. moi qui vous remercie. merci Pierre-Edouard parce que j'ai à de moi Pierre-Edouard Faye Sérère ah avec les Sérères il n'y a pas d'erreur. il n'y a pas d'erreur. donc c'est une bonne chose.